واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen ndokkeel di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot di fàttalentendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci suñu jataay yi ñu tudde jataayu xam-xam te ci fàttalenteendoo ak yéen ci jataay yooyu lañu ñuy rek di continuer di sof fi ñu taxawoon ci suñu bind weesu suñu bind weesu ñu ngi woon ci ñetti cosaan yi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu wax ne mooy cëslaay yi nga xam ne ci la ak mooy di euh, soqi ko wala boog ñetti cëslaay yooyu képp ku ci mucc mën nga mucc ci ak moy te loolu moo di ak rëy waaye moo di ak coxor waaye itam moo di ak xeer ñu taxawoon ci bayit bi nga xam ne moom di sëriñ bi radiyallahu anhu di ne wa xamalal xasadu najluhu ala xatli axihi isxawa taqabula nee na soxor mooy li nga xam ne moo yóbbe woon jëmm ji di xaabil ray mbokkam ma nga xam ne moo tuddoon xaabil ginnaaw ba mu jàppee ne ñoom ñaar seeni jëf dafa xaw a sorente ba mu jàpp ne xaabil li mu jëfal suñu borom bi subhanahu wa yàlla mën na ko ci gërëm te bu ko ci gërëmee moom nit ñi dañ ko koy xoole loolu dugal ak kiñaan ci boppam ba mu ray mbokkam moomee waaye ba mu ko rey itam amoon na jafe-jafe bu baax a baax ndax xamutu woon nu mu koy def ba suñu boroom moo mujj yebal ñaari baaxañ ñuy xeex ba benn ba rey moroom ma euh, daa di ci sàllam ba mu xóot mu suul moroom ma euh, ca noone ca la xaabiir euh, daa di wax ne kon nee nga xam ne noonu la baaxañ bi def rek noonu laa war a def sama mbokk mi nga xam ne moom laa rey kon soxor rek moom moo ko yóbbe woon mooy rey mbokkam moomee ndax jàppoon na ne mbokkam moomee dina am ngërëmal suñu boroom ci jëf ji nga xam ne moom la def ngir jaamu ko yàlla waaye mu soxore ko loolu batax tax mu faat ko ñi kon ne ba tey rek sëriñ bi di wax ne xat nassa yaxal na cheikhuna sunu sëriñ asharif kay aji tedd di satub yonente bi sallallahu alayhi wa di cheikh abdul qadir al jili laa zaala yàlla bu mu deñ zaaridan di boroom ngërëm wa za di boroomu màggal ah, mu ne suñu suñu uh, sang suñu sang bu tedd bu baax boobu di cheikh ah, abdul qadir al jili yaxal na yaxal na ah, lan la yaxal ne na yaxal na an na tasawufa naka tasawuf a ala bunyaanin euh, nekk na ci ab tabax arkaanu mabnaahu ponki tabaxam ba ala samaanin mi ngi ci juróom ñett juróom ñetti keno nee na cheikh abdul xadir al nassa yaxal na ne tasawuf de bu fekkoon ne dañ koy misaali ne ab tabax la dañuy wax ne tabax la boo xam ne juróom-ñetti keno moom moo ko moo ko juróom-ñetti keno moom mooy li nga xam ne moo koy dëgëral kon ci cheikh abdul xadir al moom ponki tasawuf kon juróom-ñetti ponk la ko def nga xam ne bu fekkoon ne at tasawuf dafa doon am néeg boo xam ne ah, dafa aju dafa aajowoo ñu taaw ko booba euh, moom jàpp na ne juróom-ñetti keno mooy li nga xam ne moom moo koy taaw euh, bi ci jëkk mu ne saxal xalili mooy tabeek euh, xarit ba di soppe ba di suñu maam ibrahim alayhi salaam suñu maam ibrahim alayhi salaam dafa amee woon ak tabe bu ku jéggi dayo tabe lool ci alalam waaye tabe lool lool ci li nga xam ne moo di aw ñaqam euh, Cheikh Abdul Qadir al Jili yi wax ne bokk na ci ponki tasawuf kon mooy tabe gu mel nii tabeeb sunu Ibrahim jooje nga xam ni daf daan tabe ci am amam waaye daf daan tabe ci aw ñaqam lépp loo xam ne moom la lislaam soxla ci am amam euh, daf ko daan joox waaye lépp loo xam ne moom la lislaam soxla ci aw ñaqam daf ko daan joox warida sax warida isxaqa ak ngërëmul euh, yonent yàlla isxaqa mooy gërëm gi nga xam ne yonent yàlla isxaqa alayhi salaam gërëm na ko lépp loo xam ne moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala dogal maanaam lépp loo xam ne moo am te suñu borom dogal ko moom yonent yàlla isxaqa dogal bi daf koy neex cheikh abdul xaadir jili wax na ne euh, ñaareel ba ci ponki tasawuf yi kon mooy gërëm lépp loo xam ne yàlla daf koo dogal ci yow kon jaam bi euh, nga xam ne dafa soobu yoonu tasawuf war naa fexe ba lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala dogal ci moom mu neex mu naqari mu gërëm ko waaye mu neex ko comme ni nga xam ne noonu la yonent yàlla isxaaqa daan def wa sabru ayuba ñetteel ba mooy muñub euh, ayuba yonent yàlla ayuba alayhi salaam allazi ma xam ne xat faaxaa kawe na ñetteel ba ci ponk tasawuf yi mooy muñ gu mel ni muñu yonent yàlla ayuba mi nga xam ne suñu borom tegoon na ko ay natt yu mittee mitti waaye natt yooyu yëpp daf ko muñan ba suñu borom bi doon wax naan inna wajadnaahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab maanaam ab jaam la boo xam ne bu mënoon a muñ la waaye jaam la boo xam ne itam bu bàyyi woon xel boromam la di muñ lépp loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko koo teg kon yal na ci jullit bi yàlla na ci ki nga xam ne moo soobu yoonu tasawuf mu ame muñ gu mel ni muñu euh, Seydina mo moomee nga xam ne suñu borom tegoon na ko ay natt bu baax a baax a baax mu muñ ko isaaratun li Zakaria ñeenteel ba mooy muñuk wala junjuk seydna zakariya alayhi salaam kaza niki noonu xurbatu yaxya tumrankeek seydna yaxya alayhi salaam suufu musa ngëndalul seydna musa al muxtaza kadi ñeenteel ba ci ponk tasawuf yi nee na mooy e, isaaratu ni zakariya mooy junju gi nga xam ne zakariya alayhi salaam defoon na ko suñu borom bi subhanahu wa taala bi nga xamee ne moom yonent yàlla ñaan na suñu borom mu defal ko Euh, doom joo xam ne euh, dana ko mën a taxaw ginnaawam euh, ba mën a taxaw li nga xam ne mooy lislaam ci ginnaawam ba mu ko ko ñaanee suñu borom subhanahu wa taala daf ko waxan ne ko loolu danaa la ko may mu ne ko jox ma firnde maanaam jox ma firnde bu may tegtal ne sama soxna toll na ab diggante suñu borom subhanahu wa taala ne ko boo toogee ñetti fan yoo xam ne waxoo ak kenn da ngay toog di tudd yàlla rek Euh, toog di tudd yàlla rek ngay saxoo nee na bu fekkee ne def nga lool day euh, da nga gis mandarga mu lay won ne sa soxna toll na ab diggante euh, Seydina Zakaria sax ci loolu di ko def ba mu amee ñetti fan ci la gis ab junj bu koy won ne soxnaam wan na na li nga xam ni moo di aw mooy li muy wax ne euh, li muy wax suñu borom subhanahu wa taala ne ko ijal li aya suñu borom ne ko al ayatuka allah tukallimu naasa salaasata layaalin maanaam mm, tegtal bi ma lay jox mooy nga bañ wax wax ak nit ñi lu ñetti fan sax ci tudd suñu borom subhanahu wa taala kon bokk na ci ponk tasawuf mooy euh, di weet di tudd suñu borom subhanahu wa taala waaye di noppi ci jëpp wax joo xam ni amul njariñ waaye mënta jural nit ki benn njariñ comme ni nga xam ne noonu la ko sayidna ayub alayhi salaam doon defee ginnaaw bi mu sàkkoo ci ñu borom subhanahu wa taala mu defal ko mandarga moo xam ne dala ca xamee ne ah, soxnaam toll na ab diggante ah, juróomeel ba mooy ah, tumuranke sayidna yahya alayhi salaam ki nga xam ne moo soobu yoonu tasawuf itam bokk na ci ponk yi nga xam ne moom la cheikh abdul xaadir ji indi mooy mu num nungoo tumuranke maanaam mu lool comme na nga xam ne noonu la ko sayyidina Yaxya alayhi salaam doon doon defee euh, niki noonu itam euh, mu woyof lool woyof mbubb lool waaye bañ a bëgg àdduna euh, waaye bañ yenu li nga xam ne mooy àdduna bañ cee xër comme ni nga xam ne noonu la ci sayyidina Musa alayhi salaam meloon nga xam ne moom lu woyof la daan sol Euh, te ku ñu daan roy la waaye ku ñu daan bàyyi xel la waaye dund gi nga xam ne euh, moom la jàpp ne dund gi amul solo ak soobu gi mu soobu yoonu suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu oyo falaloon adduna am lool ba lu yére yu seer ak yu demee noonu sax daawu ko euh, jëfandikoo kon Cheikh Abdul Xaadir al Jiilaani na bokk na ci ponk yi nga xam ne mooy ponk tasawuf mooy nit ki woyofal adduna am lool ba nga xam comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Musa alayhi salaam wooye fale ci ak colam ak ci jëflanteem ak nit ñi euh, ak ci lépp loo xam ne moo aju ci jëflante gi bi jëflante ak nit ñi siyaaxatu ibnu mariamin wëndeeloo ibnu mariam di isa wa faqru Seydina al muxtaari ak ñàkkuk suñu sang ba karikantan waxoote moom albarru mooy aji baax nena bokk na ponk tasawuf ba tey mooy wëndeelu gi nga xam ne moom la Seydina Isa ci àdduna bi ngir lan di wëndeelu ngir gën a xam li nga xam ne mooy kéemtaane suñu borom subhanahu wa taala waaye di gën a xam li nga xam ne mooy kattanu suñu borom subhanahu wa taala waaye màggu suñu borom subhanahu wa ba tax mu gën koo ragal waaye gën ko yaakaar waaye gën koo bàyyi xel wëndeelu gu mel noonu itam ki nga xam ne moo nekk ci yoonu tasawuf Euh, Cheikh Abdul Qadir Jili wax na ne loolu ci ponk yu la bokk mooy nit ki di wëndeelu di bàyyi xel li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala sàkk mu ci jàngat euh, di ci xelaat ngir gën a euh, xam màggu suñu borom subhanahu wa taala waaye gën koo bàyyi xel bu baax a baax a baax kon wëndeelu googu itam day tax nit ki di mën a xelaat bu baax a baax ci la suñu borom subhanahu wa taala bind waaye day tax mu nit ki di mën a gis yu wuute yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bind ci kàttanam yooyu yëpp daf koy gën a yokk ak ngëm waaye daf koy gën a dooleel euh, daf koy gën a bàyyiloo xel euh, suñu borom subhanahu wa taala waaye daf koy gën a euh, firndeelal màggug suñu borom subhanahu wa taala ak kàttanam gi kon Cheikh Abdul Qadir al Jili boole na ci ponkita saw si mooy wëndeelu bi nga xam ne moom la suufi bi di wëndeelu ngir lan ngir gën a xam kattan gi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala amee waaye mbir yu wuute yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bind ah, niki noonu tamit ñàkk bu mel ni eh, nungoo ñàkk ñàkk gi nga xam ne moom la suñu sang ba di Seydina Muhammad alayhi salaatu ah, ñàkk nga xam ne moom eh, eh, amoon na lépp loo xam ne lépp loo xam ne bëggoon na ko rek mënoon naa yomb ci moom lool ndax lépp loo xam ne soxla na ko suñu borom subhanahu wa taala yombalalal na ko ba doj yi ak xeer yi sax dañ daan sàkkoo doon ay wurus euh, di ñëw ci moom di sàkkoo doon wurus ngir mu leen di jëfandikoo waaye loolu lépp daf ko gàntaloon euh, euh, daa di gënal li nga xam ne moo di ak ñàkk waaye gënal li nga xam ne moo di ci ak ñàkk moo ko ak te loolu lépp ci euh, euh, bëgg-bëggam rek la ko teg ndax suñu borom subhanahu wa taala teggiloon na ko waaye euh, kon bokk na ci ponk yi nga xam ne moom la Cheikh Abdul Qadir Jilani lim mooy ki nga xam ne dafa soobu yoonu tasawuf na nangoo ñàkk comme ni nga xam noonu la yonente bi sallallahu daan ñàkke te mënoon a am bu baax a baax a kon yooyu mooy juróom-ñetti ponk yi nga xam ne moom la Cheikh Abdul Xaadir Jiili yi yaxal ne bokk na ci ponki eh, tasawuf mu faltas ali man ñaan faltas ali nay laaj alaal waaw bismillah mu ne faltas ali na ngay laaj alaalima aji xam ja waxzu te nga eh, eh, topp waxzu te nga topp koñ topp wala ka te nga sàkko xeeñtu al mutabia kadi kañ topp ah, kadi ka topp li sunnatil muxtaari ñeel sunnaas kanu tànn xayri moom ngën ki ka nga xam ne tabia topp nañ te moo di suñu sang xabibina te moo di suñu soppe muhammadin moo di muhammad salla yàlla wala alayhi ci moom rabbuhu boromam fii abadin ba faw huwa moom allazi may ka nga xam ne yadullu ko dana la tegtal ad dahra ci diirub jamono ala taati rabbika ci topp sa boroom bina jin ci aw yoon yaxtala woo kama yakunu naka mu nekke laka ñeel la za tahzirin ci boroomu jaji miniti baal maakiri wala ci boroomu wattandikuloo miniti baal maakiri ci topp aji pexeja alxururi kay ab kon ne na eh, laaj aji xam ji laaj aji xam ji te ngay topp ki nga xam ne ku topp sunnaas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngay laaj aji xam waaye booy topp na ngay topp ku topp sunnaas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ka nga xam ne dana la tegtal ci topp sa borom bi subhaanahu taala waaye itam dana la euh, dana la moytandikuloo ci topp ka nga xam ne mooy aji pexe yaakoon ja waaye di aji euh, wor wor ja te mooy iblis Euh, yal nañu yàlla musal ci aw ayam kon nit ki na fexey bu baax a baax buy topp muy topp euh, aji xam waaye itam aji xam joo xam ne dafa topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu pare euh, di la ca tegtal waaye di la toppaloo suñu borom subhanahu wa taala di la moytandikuloo li nga xam ne mooy lori iblis waaye di la li nga xam ne mooy pexey iblis kon ñoo ngi tuub bu baax tey jéggalu di taxaw foofu وأن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey